wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammadin il amin wa ala alihi ci teg moom du bari ndax daanaka gouverneur wax na waxaale nu ndax li am solo rek mooy liñ doon def tey ak fi liggéey bi toll waxtaan bàyyiwunu fi guddali wax bàyyiwunu fi te lépp wax na ko matale na ko jotale na ko wax na fi liggéey bi toll xanaa nun doon ci seere rek nun ñi nga xam ne nun lañ koy defal te ñun lañ fekk si ni mu ko waxee rek noonu la demee nu ngi jot li ci ndigalul sëñ Mountakha euh, xalifa murit yi di di borom dëkk bi itam sunu cant ak sunu ngërëm ci mboolem ñi nga xam ne autorité région bi ak euh, seen kilifa ya nga xam ne ñoo ñoo ngi ca kaw ndax wax dëgg yàlla bi sëñ bi jàppee màggal gi ba léegi ni mu ko waxee daanaka wenn weer li muy xat-xat xat ndax coow yi fi amoon ñetti daje yi ñu war a def yëpp mbaa ñaar yëpp def nañ ko ci ay bis yu gàtt waxtaan ji ci liñ soxla ci màggal gi mu diis lool ndax ku ne xam na ne daaw màgg màggaluñu ndax euh, mbas mi fi amoon euh, dama leen wax sax ne leen ñaari màggal lañuy ñuy màggal ndax lu ñu waroon def daaw te defuñu ko duñ ko romb faaw ñu def ko booleeg li ñu war a def ren lool na xam ngeen diis na te jamono ji gàttoon na te xat waaye yàlla ak pas-pasam ak yéeneem ak pas-pasu chef de service yi ak seeni kilifa taxaw nañ tem ba mi ngi mel ni daa màggal nañ ndax yiñ soxla yëpp wax dëgg yàlla lu ci ne taxaw nañ ci te damay wax ni li ma dëkk ak ñoom taxul ñoo sama dëkkandoon nag wax dëgg yàlla ñoom laa xam ci ñoom laa jote jote wu ma feneen waaye dafa mel ni liggéey bi li ci ëpp ñoom ñoo koy def ci région bi lay amee ndakaat nañ leen dimbali xëy na benn la rek waaye nun liñ gis rek lan mën a seere ak liñ xam liñ xamul xamuñ ko kon liñ gis moom seen taxawaay seen pas-pas euh, wax dëgg yàlla feeñ na ci tàmbali bu bisub tey bi ndax ak léegi bañ tàmbalee bañ waxee suñu ak léegi yàggut te dox nañ ci jéego yoo xam ne wax na ko léegi te euh, am na loo xam ne waxuñ ko waaye yi ci ëpp solo nga xam ni mënta ñàkk wax na ko ndax sëñ bi daf daan wax ni màggal moom ñaari ñaari ñaari man-man la li nga xam ne noo ko mënal suñu bopp yàlla def nu mënal ko suñu bopp loolu moom yonu kenn néew ci noo koy defal suñu bopp duñ ci tàggu kenn duñ ci ñaan ndimbal lu ndimbalul yàlla waaye am loo xam ne nag mën luñ ko suñu bopp état bi moo nu ko mënal di suñu beneen loxo te état bi mooy yéen loolu wax na ko fi léegi lu mel ne wàllu sécurité gi dégg ngeen li mu ci wax sëñ bi mu agsee rek lu man ñaar fukki gendarme ña ngi fi boobu ba tey di ko taxawu gis ngeen ni mu xate daayira yi bis bu ne lu ne lañ ci daj fi lañuy ñuy yenn fi la ñuy fanaan ay wàll yoon yi mooy ci tegu ñoom ñoo fi njëkk soxla woon liggéey bi sa àggagut waaye mën na maa wax ni bu fekkente ne téeméer la juróom-ñaar fukk yi moom noppi na yoon yi nga xam ne mooy jëm si Porokhane te yàqu ci nawet bi yooyu rek mooy ci des suuf si matale nañ ko ak lu néew mooy ci des kon ñooñu wax dëgg yàlla ñoom xaw ma cent pour cent yi mu doon wax gi waaye yaakaar naa bu tudd nañ ko weesu ndax def nañ loo xam ne sax waxuñ prévoir ñun ko nun ginnaaw bi la ñu feeñ liggéeyal sëriñ nag dafa jafe ndax koo xam ne amoo programme nit ñee lay programme jamono lay programme mënu neexoo liggéeyal ñoom mel na loolu xam nañ ko moo tax boo tudd mu ne dañ weesu cent pour cent wàllu courant bi itam ni mu ko waxee noonu rek la demee Senelec ba fii ñu wax ak yéen lañ digg woon ak ñun lépp def nañ te luñ ci àgg loo xam ne lii suñu xel àggu ci danañu ñu ci dimbali lépp loo xam ne yaakaar nañ ni itam buñ ko defee ëllëg si biir eh, dana dana dana dànk dana dànkaafu ay jafe-jafe def nañ ko yokk nañ eh, guddaayu extension bi def nañ ko xëy na lan laajoon joxuñ joxuñ ko waaye laaj lépp am lépp nag yombut waaye xam nañ ne lu yokk extension bi luñ ci mën def nañ ko in nañ fi ay groupe yoo xam ne mbirum courant moom kenn mënu koo takk waxtu wu coupé ba barab bi jumaa ji ak fii nu nekk ak kër kër kër yooyu yëpp indi nañ fi groupe yoo am ne waxtu nu yàlla nattoo bu coupure am ñu taal ko dem ba tey noonu lañuy def indi nañ fi itam làmp yu leer leer yoo xam ne fu leerutoon ci barab bi ëtt bi ak mbedd mu mag bi yëpp def nañ fi ay làmp ak àggalaguñ sewa ñu ngi ci ak yeneen ak yeneen yoo xam ne def def nañ ko fi wàllu ndox mii itam ni mu ko waxee euh, Flexo ak CNO ak surtout service service bu départ bu région bi luñ mën def nañ ko liñ digge woon ñu ngi ci xam naa buñ tàddee tardement bi bariwul ndax liñ xalaatoon muy xalaat bu rafet moo di citerne yi teel a ñëw ginnaaw ndëkk bi kër gu ne kër gu ne am na baaj yaakaar nañ ni balaa nit ñee bari ba bari buñ góorgóorloo citerne yi teel a ñëw balaa bis bee ñëw buñ duyee bàyyi yëpp ba mu fees rek dañ cee topp te bu boobaa robinet yi dana mën a xel lu bari te yoon woo wàcceguñ ko ndax fi ma fi may wax ak yéen rek lu ma juróom-ñeenti citerne ñu ngi fi te ni mu ko wax yaakaar naa ne buñ ñëwee dañuy daal tàmbali liggéey bi te buñ ko tàmbalee tey rek hmm. yàlla mën na leen a dimbali eh, yi ci des dégg ngeen ko du douane sécurité la bokk euh, service d'hygiène ñu ñoom ñu ngi pompe démb ba tey àggalaguñ waaye ñu ngi ci ak service yëpp am na ci ñoo xam ne ñëw nañ tàmbali nañ am na ci ñoo xam ne agsi nañ dañoo war a tàmbali am na ci ñoo xam ne ñëwaguñ te xam nañ ni ñu ñëwagul faaw ñu toppandoo ñi nga xam ne jiitu nañ leen kon nag mënuñ lu rafet njot ci màggal gi incha allah yaakaar nañ ni daal ah na nu daan dale incha allah danañ dale mooy tàmbali ko ci bisimilah àggale ko ci alhamdulilah li tax ñu rafet ci njort nag moo di sans rek mm-hmm. ndax kii moom bis bi moom. léppam da ko joxoon da koy joxoon yàlla li ko yàlla may li moom moomal boppam lépp da koy jëloon delloo ko yàlla li dund ngay gàtt gàtt looloo ko may lim ko may ndax yàlla ko lebal mu fay la te def ci rafet du ko sànq bu mukk moo waral moom jaare bu mi nga xam ne moom lañuy màggal jigéen la waaye bisam bi ku ko fi am jën góor ñu bari amuñu ko waxuma laa jigéen ñi te loolu liggéey yàlla rek moo ko may kon mel ni sax yéen seen warugar ngeen di def ci wàllu service waaye yéen ngi liggéeyal yàlla ndax ku yàlla ngeen di liggéeyal kon nag kuy liggéey yàlla ku ne war ngaa war ngaa rafet njort kon nag ñu xam ne rek man damay seere rek li nga xam ne gouverneur wax na ko dëggal ko sant leen gërëm leen ndax lépp seen taxawaay la ndax bu ñu yaafus may ma àgg bu ñu yaafusoon wala defuñ lañu war a def kon liggéey bi du agsi fii te yaakaar naa man jiite naa comité d' organisation lu ëpp fanweeri at mm-hmm. waaye nii nii ñu ko jekkoo ren ji musuma gis ñu jekkoo ko nii loolu nag sant yàlla rek la yàlla mi nga xam ni moo leen bind ñoom mm-hmm. def ci ñoom yéene ji rafet yéene ji sell ak pas-pas kon nag loolu ci turu sëriñ bi sëriñ nga xam ne mooy suñu kilifa ñëpp moom dëkk bi yéene fi yoonu murit ak ci yoo ci murit yëpp ndax moom soxla wu ci dara mm-hmm. njëriñ lu ci am bëgg mu dellu ci taalib yi dellu ci réew mi kon nag ci seen tur ñoom ñëpp àggalagu leen ndax nit nit ku nit kuy liggéey te àggalagul bu ko ne jaajëf mm-hmm. waaye sañ nga ko nag fii wax dëgg yàlla sama xel dal na ci yow ngeen xam suñ xel dal na ci yéen noo ngi ñaan nii mu tàmbalee rek mu àgg àgg ni la ca desit moo di rek ñi ñëw te tax ngeen di sonn ñooy ñooy tax nuy sonn mooy ñi nga xam ne dañ fii ñëw ngir siyaare si bari na xeet yoo xam ne nag dañ fi ñëw am na ñoo xam dañ fi ñëw ngir yàlla am ñoo xam ne dañ fii ñëw ngir seen bopp ñi ñi fi seen bopp indi moom tudduñu leen taasuñu leen jote wuñu ak ñoom dara noonu loolu bàyyi wuñu fi ñu fi bàyyi daal mooy ñi nga xam ne kii daa liggéeyal yàlla ba yàlla fay ko yàlla def fi loo xam ne ku fi ñëw ñaare bu la ci yàlla séddee saxal dana sedd ñooñu ñoo nu fi bàyyi nu góor góorgóorlu ba xamul luñ ci am waaye luñ ci am ñu bokk ak ñoom luy tax ñu am ko it ñu taxawu leen ci ba loolu am ñooñu la ñuy soññ ndax nit ki kat magum jëmm du bàyyi lépp ngir dara di ñàkk fayda ba dara dara raw ko te lu nekk fi barab lu ne na koy wute na ko war a wute ba am ko boo ko ni wutewut doo ko am mu ngi mel ne rek yéen fonctionnaire boo xam ne day liggéey bu xëyee tëdd ci lalam ba jant son bu guddee mu taxawaale ji bu yàggee bu weer dee kenn du ko fay dara fii itam noonu rek la li fi ne li ko fi indi muy jaamu yàlla topp yàlla ragal yàlla sellal ku ko fi indi wut itam da ngay sonal sa bopp rek boo ñëwee doo fi jël dara doo fi jëlee dara moom jaar ni ko yàlla melaloon ak li ko yàlla jox ak li ko yàlla may lool rek ci nga mën a tibb ba am ci li ko yàlla may kon na ku fi ñëw ku ne na nga bàyyi xel loolu ànd ak yar ak teggin ca na ngay waxe na ngay sole ak na ngay defee chauffeur yi moom waxuma leen ndax responsabilité bu rëy la yor ndax ay bakkan ku ko yor te ñu ne bakkan yi nga yor yëpp sa sa sa jëmm ji daanaka moo moo yor seen kaaraange lu rëy rëy la te bakkan kat ku ku ku ko ñàkkal nit la la yàlla dig xam nga ko waaw boo ko teyee boo ko teyee war a nga jëm te am na yoo xam ni tey tey la nag koo xam ne ki yow nit dong nga nit dafa war di sonn di noppalu di sonn di noppalu boo sonnee war a noppalu noppalu wuloo ndax bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg xaalis wala leneen looy wut ba leneen far la nga yóbbaale ci yeneen bakkan responsabilité bi yaa koy gàddu kon nañ ginnaaw moom alhamdulilah rabbil alamin yoon yi baax nañ am na ñu baax ñoo xam ne oto bu paan ñu defar ko am na ñoo xam ne dañ fee nekk di leen gindi di leen fàttali ay code de la route yi demee noonu def nañ plan de circulation buñ ci jaaree ñëpp danañ yaatu kenn ku nekk fa nga war a jaar boo fa jaaree kenn du xat xat-xat du am loolu wax dëgg yàlla ay jàppandal yu bare bare la yoo xam ne boo ci sukkandikoo rek def la nga war a def yàlla mën na laa musal ndax yàlla moom bala laa musal da day day wut sabab ba noppi boo jaaru ci sabab su la mën a musal kon nag maa ngi soññ sama bopp